voilà merci Ibrahim je pense que tey journée yi li ñu gën a fësal mooy euh, peut-être premier résultat yi génn ci ci dialogue bi nga xam ni euh, moom le président Macky Sall woote woon te ñu tënkoon ko ci ay euh, naa juróomi juróom-benn commission. huit huit ko huit commission voilà j'avoue que suivi. dégg naan daal waxtaan am na mais dans les détails euh, man damay xaar résultat yi ba léegi li ma njëkk a jàpp mooy ni résultat yi sax amaguñu ko cest à je pense que ci communication bi sax baax na journaux yi peut-être bañ a dugal ci xelu sénégalais yi que conclusion yi génn na ba nga xam ni tey am na lu ñu mën a téye parce que am na ki nga xam ni ku am solo la ci dialogue bi mooy président la république daf ci bokk moom sax moo ko woote waaye ba léegi moom ci yenn pàcc yi waxagu ci te sax ci xalaat yi nga xam ni commission yi diisoo nañ ba indi ko moom waxagul ni ne nangu na ko kon man jàpp naa ni ba léegi amaguñu conclusion loolu c'est très important parce que président sax ci boppam je pense que bi ma koy déglu moom nee na am na li nga xam ne dina ci tontu bu élection bu tabaski bi passé te loolu pàcc bu am solo la jàpp naa ni sax mooy pàcc bi gën a am solo ci dialogue bi moo doon candidature am kon ba léegi pàcc boobu jeexagul ñu ngi ci waxtaan bi ba léegi dafa am nag li nga xam ne mu ngi mu ngi mu ngi ci moom kon su ñëwee ba wax jàpp naa ni foofu la ñuy commencé wax ni ah lii de mooy conclusion dialogue bi benn ñaar dégg naa ko tamit ci wàllu sport rek naa ni dégg naa ni proposition yi parce que jotuma lire euh, rapport bi yëpp parce que li génn rek ba léegi mooy rapport politique bi mais yeneen commission yi gisaguñu seen résultat donc li président wax par exemple gis naa fa dégg naa fa ay propositions ci wàllu sport parce que def naa dañu proposer mu am wàll bu ñu jël ci budget bi wala ci pétrole bi def ko ci sport moom tout de suite sur le champ nee na moom d'accord kon loolu mooy Macky Sall yéen a ngi fàttaliku bi CNRI bi ñëwee mu liggéey loo ñoom Amadou Makhtar Mbow ak ñeneen ñi nga xam ni euh, dañu ma euh, Lamine Loum ak ñeneen ñi nga xam dañu xarañoon ci wàllu instruction bi ñu ko ko indiwee dafa jël li ko ci neex kon man jàpp naa ni ba léegi balaa sénégalais yi di mën a jàpp mbir mii lan la jur il faut ñu déglu président Macky Sall ba pare mu wax ba pare parce que wax na dafay dem euh, commission en procédure d'urgence peut-être li mu waxul nii texte yooyu balaa ñu koy liggéey moom mooy ñëw ne leen lii boole leen ko ci lële bu leen ko ci boole kon man damay ne nañu tey ndegam moom yàkkamtiwul parce que ñun yi nag yàkkamti nañu parce que moom moo woote dialogue suñ demoon egsi fii man dama xamul tabaski lu mu ci wala dem màkkam lu mu ci su nekkee moom li mu war a wax xam na ko dama xamul sax lu tax ñuy xaar waroon na ko wax benn yoon sénégalais yi nga wax ko nga ñàkk ko wax taxul ñu ñàkk tabaski Euh, nga wax ku nga ñàkk wax mun nga dem màkk donc dama gisul sax lu tax muy xaar je pense que président à la pour man dafa mel ni dafay fowee Sénégalais yi cest dire xam nga su nekkee y question des yi nga xam ni mën na indi sa dëkk ndërmeelu li may woy ndërmeelu mu am ay nit ñu dee mu am instabilité nga woo nit ñi ñu bàyyi li ñuy def ñëw waxtaan si Sénégal yi toog di leen déglu manifestation yi arrêté parce que ñu ne sénégalais yaa ngi waxtaan ñu dem ba pare amoo looy wax lu dul ñun dañuy xaar tabaski wala damay xaar dañuy xaar ma dem màkk man pour man je me dis en fait loolu dafay wane ni moom wala day fo wala dafa ragal li mu ñeme li li mu bëgg wax wala il la pas le sens de la gravité du moment euh, bi nga xam ni tey moo am ba yi di xaar résultat yi donc man je trouve que là y a une légèreté extraordinaire euh, kooku moom sama première observation la ci ci conclusion yi moo tax dama ci dama ci dama ciy tey dama ciy dal ba xam finalement euh, yeneen euh, euh, position yi finalement définitive yi lan lay indi